xam ne réew mi balaa ñuy wax koom il faut mu am jàmm balaa ñuy wax seddoo il faut que mu am teg kaare ak teey waa man société civile ba may wax du du bëri coow bi du boo xamante ni li ko neex rek mooy li neex opposition radicale li ko naqari mooy li naqari opposition radicale dama jàpp ne société civile boobu nekkatul société civile waaye opposition la ñu bokk man kañ su may wax société civile donte ña may waxal xëy na nekkuñ ci ay organisation société civile maa ngi wax ak ñi nga xamante ni bokkuñ gaa ci partie waaye nag am nañ yitte ci réewum Sénégal am nañ yitte ci jàmm réewu Sénégal am nañ yitte ci koom-koomu Sénégal ñoo ñoo tax may wax.